asalaamaaleykum sama gars yi tey du ma nuyoo tey du ma nuyoo parce que li tax du ma nuyoo xam ngeen ko Bassirou Gueye démb def na conférence de presse yéen ñëpp yaakaar naa ne seetaan ngeen conférence de bi yaakaar naa ne nag li mu fa wax yëpp mënoon nañu ko vocal parce que li nga xam ne mooy certificat médical bi nga xam ne tegal nañ ko ko ci kaw taabulam mënoon na cee wax ba léegi déggoo leen mu wax ci te parce Ousmane Sonko certificat médical boobu dafa am importance waroon na cee wax mais loolu sax waxuma ci dafa am ay wax yoo xam ne da ko wax ci biir conférence bi damay ñëw nag faram fàccal leen ko benn par benn diglu leen li nga xam ne moom la njëkk a wax. muy servir sa dëkk pendant 24 mu metti lool nga ñëw di ko tuumaal ñu ngi ci kooku jëlee ñu ne capitaine Mbengue capitaine Touré capitaine Touré moo leen wax ci seen télévision ni toog na. ay kilifaam jàpp ne bopp bi dafa xaw a wayadi nee na ba ñu yónnee ko benn médecin capitaine Touré moom la gendarmerie radié ne amatul dignité pour nekk ci gendarmerie capitaine Touré moom ngeen di interroger seen télé yi bas muy wax di wax ak mu ne tekk ngeen wax mu leen relancer leen ma maanaam li ma doon wax fàttali naa fàttali leen ma li ma doon wax. ne ku mel noonu moom la Ousmane Sonko di jël comme preuve contre Serigne Bassirou Guèye bu def 24 ans c'est pas reconnaissance ça kooku nga jël pour témoin dafay oyof wutal beneen témoin mais bref jëlal ku la neex. léegi nag dégg ngeen li nga xam ne moom la wax ci ki nga xam ne mooy capitaine Touré léegi gars yi damay laajte bu fekkee capitaine Touré ay waxam maanaam jarul basé wu ba di ko gëm wala yu demee noonu. ndaxte nee na Ousmane Sonko warul basé wu ci ay waxu capitaine Touré ndax capitaine Touré dafay dafa manqué dafa maanaam ni ñu ko mën a waxee mooy xel mi nekk fi quoi léegi dama leen di laaj Ousmane Sonko bu fekkee warul basé ci waxu capitaine Touré lan moo tax police ak gendarmerie ñoom ñuy basé wu ci capitaine Touré pendant des années ay at yu bari capitaine Touré nekk ci corps boobu di fa liggéeyee di def ay enquête ay dossiers yu bari di jaar ci loxoom ñoom ñuy basé wu ci liggéey ba muy liggéey. tey ñu ñëw Ousmane Sonko basé wu ci ay waxu capitaine Touré ñu ne ko waroo cee basé wu ndax capitaine Touré wérul léegi yéen lan moo taxoon ngeen doon basé wu ci ay waxu capitaine Touré ba ba pare ngeen ne Sonko warul basé wu ci ay waxu capitaine Touré kon daal tey wax na lu leen arrangé wul ngeen ne waxu dof la bu fekkoon ci li ngeen bëggoon ca la nekk kon nit lay doon comme nag nekk waxul la ngeen bëgg mu mu wax ko ngeen bëgg koo def dof yéen yéenay dof yi wala ñun ngeen bëgg a jàppee dof yi yéen yéenay dof yi pire. Ousmane Sonko war naa basé wu ci ay waxu capitaine Touré parce que yéen yéen a basé wu ci moom def ko nit teg ko seen place boobu ma leen di liggéeyal ay at yu bari nag dossier bii ñëw tey mu wax lu bokkut ak la ngeen bëggoon ngeen bëgg koo def dof kon duñu dof ñun duñu ay dof capitaine Touré du ab dof yéen yéenay dof yi dañuy jàllaat ci beneen waxaat bi nga xam beneen wax bi nga xam ne waxaat na ko ñu jàllaat ci. kon Adji Sarr wala El Hadj Diouf kay ñoo war a porter plainte fii que fii dañ ne Ousmane yow min ni Ousmane mu sel mi bi ngay set suuf wuta lañ la set seet wuñ kan mos ko de set wuñ la ci ben zawi bu sa école doom du fenen yow dal man set na la ay yoon buntu suuf wuta laa xaar rek la set mais lolu lolu wax du ñaaw la mu ne moom loolu ko ah mais très bien mais lolu bu fekkee am na kuy porter plainte yaakaar aji sar mo do war porter plainte lii yéen lii taxal Ousmane ko génne déggaat ngeen wax boobu ba tey nee na Ousmane Sonko fekkuñu ko ci jumaa ji fekkuñu ko ci zawiya bi mais Sweet Beauté lañ ko fekk léegi kon maanaam ci gàttal yow Sweet Beauté kuñ fa fekk rek nekkoo nit ku baax léegi nit ki nga xam ne moom dafa maanaam par exemple nit bu defoon accident jaare fa am ay yaram yuy métt ak yooyu ma médecin bi faj ko ba pare digal ko muy dem ci massage kat bi pour muy massage ko ngir yaram bi tëccu tëcc yi ci nekkoon mën a defaruwaat léegi kooku bu solee daalam dem ci suite beauté pour ñu masser ko yaramam kooku nit ku bon la quoi maanaam yéen da ngeen wax ne suite beauté képp kuy sol sa dàll di fa jëm doo ku baax loolu ngeen bëgg a wax bu fekkee loolu la kon yéen ñi nga xam dañoo yor seeni salon di liggéey liggéey boobu yëpp actuellement ni yéen yow yow sax laay wax bonal nga ñooñu ñëpp te pourtant foofu ay kilifa dañ fay dem di dem ñu leen di masser seen yaram parce que dañoo mas a def sog wala dañoo am ay métit métit ci seen yaram nga bëgg a jël ñooñu ñëpp bonal leen daal ne Ousmane Sonko fekk ñu ko si jàkk ja fekk ñu ko si fii suyut bëte lañ ko doon xaar suyut bëte ba mu fay dem la ko fa yóbbu wax na ko te kenn ci yéen musul am vidéo wala photo boo xam ne Ousmane Sonko dafa dem suyut bëte kon bu ko neexoon sax mu taxaw ni musuma faa dem te ba léegi ni doo leen indi preuve mais heureusement moom dafa jub ba noppi nangoo wax dëgg ne leen man dem naa fa waaye lii moom fa yóbbuwoon ngeen bëgg a jël suyut bëte bonal ko bu fekkee suyut bëte dafa bon naa leen wax lenn Adji Sarr moo fa doon liggéey kon moom nu mu mel ndax Adji Sarr moom moo doon liggéey Sweet Beauté comme Sweet Beauté ku fay dem rek baaxoo ka fay liggéey kon kon kooku ku mu doon naka ngay jëlee xale buy liggéey ci biir Sweet Beauté nga bëgg koo def nit ku baax ña fa doon ñëw di ko fa fekk nga ne ñoom ñoom ñoo bon moom mi sol ay dàllam dem ba Sweet Beauté di fa liggéey kan moo ko gën a bon bu fekkee Sweet Beauté daa bon nag laa wax parce que ni ma la déggee nga waxee may mooy Sweet Beauté moom ku fay dem baaxoo ku fay toxawaalu baaxu kuñ fa fekk baaxoo te ñàkkul ne yéen ñii kenn ci yéen ba tàyyi yaramam metti na mu dem ñu maaseel ko ko kon nag bu leen bu leen ñu suñu xel yi dañuy demaat si ñetteelu wax bi nga xam ne moom la waxaat digluwaat leen wax bii nii encore. léegi yow mi nga xam ne jàngoo droit bëggoo discuter dama la bëgg laaj nga wax ma Ousmane Sonko ñii ko complot ñëpp. li ñu yor ci sañ-sañ ak doole ñu bëgg ko jàpp mu def ba rëcc mu def ba rëcc procureur am na sañ-sañ ñu jàpp leen commandant section sa atta doole jàpp commandant gendarmerie territoire mën na ko renforcer ministre de l'intérieur mën na ko renforcer ministre de la justice mën na euh, moom muy kilifa yi euh, procureur général yi ñoom ñëpp complot moom mu rëcc fan la jaar bu ñu fayee seen xel nag bëgguma euh, question bi yaakaar naa ne lii du question quoi parce que boo taxawee nga ne Ousmane Sonko euh, procureur doole bi mu am gendarmerie doole bi mu am Moussa Fall doole bi mu am ñooñu ñëpp comploté ko lan moo tax mu rëcc maanaam lan moo tax jàppuñu ko lan moo tax ñooñu ñëpp bëgg koo jàpp ba noppi mu rëcc mais loolu du question li tax mu rëcc mooy xam nañ ko yéen jàppoon ngeen ko wala da ngeen a fàtte loolu yéen jàpp ngeen ko ba quatorze personnes faatu ci. léegi nag askan bi génn taxaw fépp ne leen du ci dal looloo tax ngeen bàyyi wat ko mais la ngeen bëggoon defoon ngeen ko kon yéen bu leen bu leen ñu fontoo di fooye seen xel yi ba pare di fooye fooyewaale suñuy xel yéen Ousmane ko jàpp ngeen ko mais askanu Sénégal ñoo jug ne du ci dal kii du Karim Wade du xalifa sàll jug jàkkaarloo ak yéen xeex ak yéen ngeen def lu ngeen def Sénégal yëpp teg ci seen bët. ba li fi xew xew fi ngeen xam ne lii bu continuer du baax si yéen ngeen teg ko ci suuf looloo tax ngeen génne ko kon li nga posé question bi wax ji nga wax maanaam moo amul njariñ moo amul sens question bi nga posé nii lii du question koo fi taxawal ci Sénégal xale bi gën a ndaw boo ne ko Ousmane Sonko lan moo tax heure bii mu koy fekk ci mbedd mi ba léegi kenn jàppuwu ko loolu question bi ñëpp xam nañ ko jàpp nañ ko ba dóor ko si kase ba mu am fa ñetti fan sénégalais yi taxaw ne du ci dal kon sa question bi laajaat ko sa bopp te lii du question quoi bu ma waxee ngeen jóg ne da ngeen def ay conférence de presse di jéem a diaboliser waxal ci certificat médical bi nga xam ne moom lañ la tegal ci kaw taabul bi mu leer la ne ni médecin ba nga xam ne moo xool xale bi nee na kii kenn defu ko dara def nga sa conférence de presse ba pare amul benn yoon man dama la seetaan parce que man awma seen jot mais nag comme da nga ne jóg pour diaboliser dama lay seetaan ba mu jeex ma xool ba xam yow di nga wax ci li nga xam ne mooy certificat médical bi man sa leeral yi loolu rek laa si doon xaar de ak ma doon xaar nga ñëw ne certificat médical bi ñu doon wax ne médecin bi ba mu ko xoolee gisul dara kat certificat boobu nit ñi sax dëggal nañ ko ndaxte gisuñu ci dara mais loolu waxoo ko bul taxaw ne da ngay leeral bul boo weddee tuuma yi Ousmane ko teg sa kaw leeralaaleel boobu dangaa tëb boobu nee nga Sonko xaw ma dafa tëb lan ak lan ak lan yow mi yaa tëb certificat médical bi booy génnaat di def conférence de presse leralal foofu ñu lay xaar. nit nga réew mi yéex yàgg dool ay élection koy defar dool watee dool wàcce kenn dool yéegal kenn yéex yàgg révolution rek koy defar amul leneen lu mun a defar Sénégal lu mooy révolution. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave